salaamaaleykum am internet salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo la chaîne Equivox TV ñu ngi fii ci diwaanu marché HLM ñu gis fi xew-xew bu nga xamante bu doy waar la ay cantines yoo xamante dañu koo démolir ñu war a waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo di borom place yi ndax état am na lu mu teg seen loxo ndax utal nañ leen fu nga xamante ni feneen lañ war a nekk loolu yëpp damay tàllal sama micro ànd ceeg moo du xulee sama caméraman bi incha allah waa gis ngeen ñu ñu ngi fii ci diwaanu marché lem marché aselem ngeen gis place yi nga xamante ni dañ koo toj seen i borom génn ñi nga xamante ni dañ fi doon nekk doon ut lu ñu am pour dimbalee seen njaboot est-ce que tey ñu mën a wax ni est-ce que am na lu état teg seen loxo est-ce que tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seen place ci lan lañ yaakaar pour dundal seen njaboot dinaa tàllal sama micro kenn ci ñoo xamante ni tey jii mi ngi ci biir marché HLM nga xamante ni moom fi la nekkoon doon fi liggéey mu bokk ci ñi nga ni kenn ci ñi nga xamante ni tey seen liggéeyul ñu ngi fi taxaw ci buntu marché bi fees su dell la Pape euh, nekk ci marché bi doon fi ancien doon fi responsable euh, affaire bu métti la loo ci mënti dégg lu métti la parce que tey euh, yaa de des de borom kër yoo xamante ni yëpp nañ leen au sommet problème mu guerre psychologie entre maire ak propriétaires yi parce que ñun ay locataire lañ euh, marché bi dañuy lo suñ fay location moo ñu fi bàyyi mais sans condition dañu xëy si rek ñu ne ñu tey kenn du fi liggéey. da ngeen xëy si rek ñu leen kenn du fi liggéey. rek ñu indil ñu ay takk der ceinture marché bi nañu ñu tey marché bi dañ koy toj da ngeen di génne seen i bagages jii sax ngeen fi ñëw affaire bi démb woon mais bu ngeen fi ñëwoon démb di ngeen gis lu gën a garaaw. fii may waxee yow nii am na ñoo xam ne ñi ngi ci mbedd mi amuñu fi ñu liggéey te dañu préparé ne dina am ñoo xamante ni tey lañ fiy jugee dellu dëkk ba toog seen njaboot trop loolu moo ci nekk parce que lii kenn mosu ko gis kenn mosul gis lu mel nii ñun ay citoyen lañ ay sénégalais lañ ñëw jëli place am ak ay borom place contrat di fay location tey ñu xëy sentir ñu nañu tey kenn du fi liggéey loolu moo ñu dal muy lu métti nag lu doy waar. mais joxuñu leen woon dele wala joxuñu leen woon dara dañoo ñëw rek xëy na leen. affaire bi contrat la woon ak entrepreneur. Mhm. affaire bi yàgg na. donc projet bi démarré woon na. bañ defar ñaari mobile. mobile par mobile lañ waxoon maanaam bu ñu defaree premier ñooñu génn ñu defar ñu defar deuxième ñooñu génn ñu def troisième ba mu jeex boo xool marché bi cinq cinq mobile la. donc nag bi ñu defaree ñaari mobile yi plan bu njëkk bi dañ ko changé après nag borom plan am problème ak maire ak entrepreneur. parce que plan bi ñu ko joxoon ñu signé contrat boobu dañ ko changé loolu moo indi problème bi mais affaire bi suñ kaw la daanu si parce que boo xool tey benn borom place gisoo ko fi ñun ñooy taxawaalu ci mbedd yi dootuñu liggéey actuellement noonu la demee mais joxe nañ fi ay sommation ba ñu commencé woon sànce bi loolu mooy li leer mais actuellement y' a problème guerre psychologique boo xam ne ci entre maire la ak boromi place ñun ñu ñëw daanu si ñu si kaw. ba ba tey fii ñuy waxee ak yow joxuñu leen fenn foo xamante ni foofu ngeen war a mën a dem pour lal fa. loolu laay interpellé président de la république direct xam ne ay doomam la ñu toroxal ay doomam la yebu yóbbu au sommet ñun ñi nekk fii di liggéey amuñu leneen lu xëy dem daani suñu doole dundal suñu njaboot sàccuñu dugguñu ci gaal fennuñu soxlawuñu yëfu kenn li ñu ñor mooy liggéey dundal suñu njaboot parce que secteur informel la ñun subventionné wu joxuñu dërëm. ñooy xëy ñàq suñu doole joxe suñu dépense amul fenn fu ñu dugal ci mbedd mi la ñu nekk amul fenn benn solution boo xam ne trouvé nañu ko. ñi mën nañ wax ni am na yàqu-yàqu yu fi am ci valeur xaalis ak ñaata la mën yàqu-yàqu yu bari yàqu-yàqu yu bëri man miy waxee yow damay ñaw am ay rendez-vous ak samay clients démb biñ koy def i may xëy si ñaari salaamaaleykum xëy si ma ko c'est pas préparé actuellement nii bu la sa njaboot wooy doo da nga leen naan débouté leen loolu mooy li gën a garaaw yaa dee cantine ne ay millions ci nekk biñ ko defar rek léegi sax amul deux mois te maire moo leen jox autorisation ñu defar ko ba pare mu ne da koy toj li gën a garaaw nag mooy nga am contrat ak Senelec ñu signal la wëlbateeku ñëw dagg sa courant sans ñu avertir te bi ngay def demande da nga dem am contrat ak ñoom saa ñu avertir la ñu ñëw rek dagg courant bi ce n'est pas normal. c'est pas gis fi takk der yi ba du ngeen amoon ak ñoom jàmmaarloo wala. ñu dañu yar takk der yi seen liggéey la ñuy def ñun dañ leen respecté parce que ñun la ñuy protégé mm-hmm. mais booy xool depuis démb ba léegi xeer jugu fi. parce que ñun dañuy yar dañu gëm yàlla li ma lay wax daal mooy président de la république fekkee mu ngi ñuy déglu mu jéem ñu xool naka la ñuy dimbalee ñu ut fu ñu teg ñuy liggéey ñun liggéey lañ gëm amul leneen lu ñuy def fii benn violence amu fi depuis dem ba léegi dañ leen di seetaan rek ànd ak yàlla mais ñu ngi ci mbedd mi waaw ñu ngi ci mbedd mi amul kenn ku ñu fekk nag jéemu ñëw wutal solution amul loolu mooy li ma leer li ma la mën a wax mu leer nañ mooy amul kenn ku fi ñëw benn autorité taxawu fi xool ay doomu dëkkam ba xam lan la ñuy def dañuy seetaan ñu ngi wax nag ci turu match bi ndax ñun fii la ñu toog di daal suñu doole maa ngi sama juróom-ñaar fukki at ak ñaar ne 49 du ma xale yàgg naa ci match bi waaye nii nu def metti na lu mat junniy nit nekk fii nu xëy a xëy a xëy na ne ñoom ñëpp nañu génn te fii la ñuy daal suñu doole lu amuñu lu ñu suñu yóbbu suñu njaboot metti na man Birahim Ndiaye nag maa ko wax ndax daa dal sama kaw te nu dal sa kaw nga wax bi ñu xëyee xëyee ñëw man maa ngi jógee Kaolack barki bi ci guddi na ma fa amoon dese bi ma ñëwee te lundi ba xëy si da ko asabila laa xëy si ci marché bi damaa du démb la laa fekk waa démb laa ñëw ci marché bi damaa xëy si ñëw ñu bi te ku fi am bagage génneel man nag aw mu woon place ci couloir bi laa nekkoon di liggéey jël naa sama machine génne ko dem dénkaani ko waaye amoo fu ma ne te maa yooyu nañ njaboot war nañ di dundal man affaire bi ci man la gën a dal ndax aw ma place waaw ci marché couloir laa nekkoon di ñaw su ma amee dara yóbbul sama njaboot fan yéem yëpp maa ngi toog ñaari fan yi aw ma lu ma yóbbul sama njaboot te du man dong la dal ndax xale yii fi ne di daal seen doole bañ a sàcc mañ jël yëfi jaamur di daal seen doole ñoom ñëpp la métti ci ñoom bu ñu sañoon nag du demee nii ñu may nu dele bu ñu mayee dele nu toog ñu toj ko pal couloir nanu waxee bu ñu tojee benn couloir ñii raddu ci bee bu yeggee ñu toj beneen couloir ñii raddu ca bee bu doon doon ñu ko ñëkkoon a waxee lan ko defee kon du am problème waaye nee nañu toj lépp. kon sama papa ñu ngi lay jaajëfal di leen ñaanal jàmm. waaw ñu ngi fii ci biir marché bi fi nga xamante ni fii la ñuy toj cantine ñu teg benn borom place boo xamante ni ñu ngi ko fekk nii ci biir place am muy génne ay bagage am sëñ bi xew-xew bi lan moo ko waral. waaye waaw moom maire bi moo ñëw rek suba teel génne nu ko waa pour ñu jël suñu bagage waaw. loolu la de waaye joxoon nañu délai moom délai bi jaloon na bu yàgg. Ah, kon si je comprends mieux joxoon na leen délai. waaw joxoon nañu délai chaque année moom dañuy ñëw fii di joxe délai. waaw duñ ko respecté quoi dañu bàyyi mu jàll. waaye bii paa moom dañoo la force. waaw mais nañ constater fii ay yàqu-yàqu yoo xamante ni euh, am na fi. waaw am na ñoo xam ne pare wu na pour gën moo tax am na place yoo xam ne sax seen bagage gënagul ñu suñu vitrine sax gënagul waaw ay gënoon suñu bagage ba pare waaye suñu vitrine moo das waaw am na yàqu-yàqu yu bari boo xam am na fi am na feneen fu ñu leen yóbbu wala da da ngeen di génne seen bagage dem toogi seen kër. non amuñu feneen fu ñu leen ngay wax euh, njiitu réew mi ak euh, monsieur le maire. naa ñu jàppale emploi yi rek moo gën semence bi moom dafa bari quoi ñu liggéeyal ci dëkk bi moom dafa bari jàppale jeunes yi ñu liggéey rek waaw. ok euh, ñu ngi nii ak sunu papa mu nekk délégué ci marché bi papa ñu gis nii marché HLM côté bii dañ ko démolir. est-ce que tey bi avant ñu koy toj wax nañ leen carrément na ngeen ni war a génn ak biñ ko tojee est-ce que utal nañ leen fu ngeen dugg. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen di nuyu di leen siyaar man la Cheikh Ndiaye Awa délégué Marché Salem 5 maa leen di nuyu di leen siyaar waaw li xew fii day mooy démolition bi ñu def ci marché extension bi lu yàgg la. longue date la mu ne su ko wax mais avant ñu koy démolir bi mu cinq sommation jox nañ ñu ko biñ leen joxee cinq sommation yi nit ñi taxut ñu génn moo tax ñu xëy démoli démolissé ko ak force ah, doy na waar lool mais marché bi dafa àggoon ci yàqu ba doy waar moom itam il faut ñu defar ko par la force ñu defar ko léegi nag li am solo mooy defar mënut a ñàkk maire moo am droit toj marché bi bu yàqoo balaa daanu ci kaw nit ñi parce que li ko ko may mooy acte trois bi nga xam ne moom lañ leen defal mairie bu ne yaa moom sa commune yaa ko yilif yaa yor sañ-sañ ba léegi nag loolu moo tax mairie yi am doole léegi biñ ko tojee itam nag léegi li man li may appel li may wax nit ñi mooy mboolem ku fi amoonu cantine ñu dajaloo léegi maire def na li nga xam ne moom la bëgg a def muy toj marché bi mais nag nañu dajaloo mboolem ko fi am cantine ñu nekk benn pour mën a tabaxaat marché bi ci kenn ku ne jotaat sa cantine loolu nag li ñu koy mooy mooy nu fédéroo a nekk benn li indi lii mooy ñàkkoon a nekk benn rek voilà. waaw ba ba fi may wax ak yow est-ce que jox nañ leen ay place yu nga xamante ni mën ngeen fa continuer seen jaay. amuñu kenn ku ñu ku ñu ku ñu héberger parce que léegi bu jëkkoon bañ ko daataan bu bu jëkkoon bañ ko plané ba doon koo defar amoon nañ ay fu ñu leen war a recaser mais dafa yàgg des années des années demut. man mi samay bagage ngi nii ma jël yàqaluñ ma dara ñu dagg courant bi doo ko commencé di toj léegi nag ci manque à bi. ah loolu moom parce que niñ ko defee ni mu demee la maanaam commerçant yi respecté wuñu woon waa waaw yi limite euh, respecté wuñ ko woon bi mooy cinquième sommation ah cinq loolu nag ñàkk-ñàkk eh, yàqu-yàqu yi moom du mën a ñàkk ndax il le nit ñi boo xëyut itam am na ñooñu amuñu départ loolu moom am na loolu moom lu nekk la lan ngay wax njiitu réew mi ak monsieur le kan njiitu réew mi ak monsieur le maire. lu wax njiitul réew mi avec ak monsieur le maire bon njiitul réew mi man li ma ko ci wax mooy euh, Macky amul droit sonloo nit ba ba ba amuñu lu ñu lekk mu ngi mi ngi décrété couvre mi ngi décrété état d'urgence ci suñu kaw te ba première euh, euh, épidémie bi ba mu amee. li ñuy waxee woon na moom la ñuy joxe fii ci marché bi amut ku ci bénéficier amuñu ci dara léegi ñoom dañuy débrouiller seen bopp di liggéeyal seen bopp léegi nag lii def nañ ko man li may wax Macky Sall mooy Macky Sall amul droit xiifal nit mu def li mu bëgg a def li mu am droit mooy toppatoo doom aadama yi toppatoo sénégalais yi moo tax ñu fal ko monsieur le maire moom itam acte acte bi jox na ko doole mais moom itam na xool nag léegi gannaaw daaneel nañu marché bi ñu seet promoteur bu mën a liggéey marché bi am compétent ñu ñu liggéey marché bi rapidement nit ñi jotaat seen i place mën di débrouiller di jot seen i dépasse loolu daal. jërëjëf papa ñu ngi lay jaajëfal lu kàddu yi rafet na. ñu métti kay mooy génn te amuñu fi ñu nekk ñu ngi nii taxawaal ñoom dañu waxoon nañ koy def par par kii par euh, tranche def nañ première tranche def nañ deuxième tranche. mais defuñ troisième tranche bu ñu defoon troisième tranche ñun dañuy dem troisième tranche ñoom ñu ñëw toj quatrième tranche mais dañoo boole troisième ak quatrième yëpp toj ko. mais mais mais joxoon nañ leen délai. joxoon nañu sommation ñun suñ bopp demoon nañ mairie waxtaan ak mairie ba mairie bi wax ñu lu leer waaye ñun tam dañoo dëgër bopp ñun waaye nag loo gis bu ñu amoon fuñ dem dëgër bopp duñ ci fekk mais dañ amul fuñ dem ñun ñëpp dañoo taxaw di xoole. kon dañoo tëj place yi nii toj ko te joxuñu leen fu ngeen dem. joxuñu fuñ dem bu ñu amoon fuñ ñu casé ñun amul benn problème mais casé wuñu ay place ngi fii te kenn joxuñu ko maire bi jéemul sax wax ci lu ci jëm dañoo toj daal génn ñu ñu dem. mais yéen ngeen compté faire. Ah, ñun daal nañu wutal fu ñu nekk fu ñu nekk daal lañ bëgg te xoolal ëpp na mille personnes yu fi nekk ñëpp ak taxaw ay borom kër ay ñëpp dañoo taxaw di xaar yàlla waaye amuñu fuñ jëm. bu ñu waxoon nag borom centre commercial bi ñu utal ñu ci kaw ñun d'accord nañ dem foofu mais nañ def tuuti jàppale nit ñi ñu liggéey. parce que ñun liggéey lañ bëgg ñun xam nañu ñoo nekkul ci parce que fii danger la mais tamit nañu jàppale casé ñu ñu liggéey jeex nañu liggéey rek lañ bëgg waaw loolu daal lañ bëgg sama doom. kilifa gi xew-xew bi mu amee nu ngeen ko yëgee. waaw métti rek métti na trop trop trop trop waaw dëgg yàlla waaw méttee métti métti ba jéggi na jéggi na doyo instant nii waaw instant yii yi ñu ngi leen génne amaguñ place ñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi wër place ah, xam nga soo ba xam dem ba léegi ñu ngi wër ñu ngi wër ñu ngi wër place dem ba léegi ñu ngi wër moom dëgg yàlla moom métti na trop trop trop trop mais nag bu baax nag waaw sant bu baax a baax waaw. est-ce que est-ce que tey joxoon nañ leen délai boo xamante ni dañu war a mën a génn. waaw mais nag gars yi nag ñoo tooñ moom ñoo tooñ waaw dëgg yàlla moom ñoo tooñ parce que ñoom joxoon nañ leen délai bu yàgg mais ñoom ñoo tooñ mais gars yi xeexee rek bet kii leen bett waaw mais man man ñoom la àndal moom gars yi man laa àndal gars yi boobu man laa àndal quoi waaw mais <laughs> sant yàlla rek waaw sant yàlla rek comme que xeex amul dara amul moom xam nga dañuy sant yàlla rek waaw ñu ngi woon fii ci diwaanu marché HLM ñu ngi woon waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo di borom place yi nga xamante ni ñoom lañ toj ah, ñu waxtaan ñoom ñenn si ñoom ñu tàllal leen seen i micro nee naa la ak équipe Equivox TV lépp loo xamante ni information la incha allahu rabbi da ngeen am di leen jaajëfal bu baax a baax wasalaam